mbokki internet maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di rafetlu ànd bi nga xamante ne ànd ngeen kook ñun la macha allah ñuy jéem a rek indi ay gan yoo xamante ni dañuy waxtaan ak ñoom ci loo xamante ni seen njariñ lay doon waaye nee naa leen ku gis toogaay bi ak ni mu jekkeek ni mu ala dinga xam ne du toogaay boo xamante ni toogaay bu bees la waaye ñëw nag ànd ak koo xamante ni tabaarkàlla macha allah day gën a yaatal rek waaye xam-xamam kenn lam laa maytu ko muy Serigne xam nga koog man ku ko xam itam ko ci xam bi waaye ku ko xam ci seen i jafe-jafe te zéro faute nee naa leen 6 ans sans faute moom laa ko tuddee. sëñ Modou maa ngi lay nuyu la bàyyi nga nuyoog mbokki internet. waaw baax da auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. di wax euh, asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaye comme niñ koy defee di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxal Bachir di ko ñaanal fan wu gudd ak wér ba naa am ci liggéeyal ko maamam suñ borom sottil ko mu ànd mboolem taalibe mboolem jullit waaye mboolem noonu lañ koy wéyalee tamit di ko ñaanal yeneen xalifa yi suñ borom may leen fan gudd wér ba naa li am ci liggéeyal ko seen maam tamit suñ borom sottil ko. Mm-hmm. waaye duñ fàtte ñi nga xam ne dañoo tawat ak fu ñu mën a nekk ci àdduna yàlla na suñu borom yëkkati. di ñaanal ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw ngir xat-xat suñu boroom delloo si leen seeni famille te musal leen ci lépp lu leen fa dugaloon. amiin noonu la ñuy ñaanalee ñi nga xam ne dañoo génn àdduna te nekk ay jullit yàlla leen suñu borom yërëm te taxawu seenu njaboot gi ñu fi bàyyi di la wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. damay ñëw ci damay ñëw ci li naa la ne souvent yooyu macha allah waaye la defal ci moom la ñuy defal ba tax na may waaw soxna Mbayang di la sant xam naa boo ko njëkkee wutoon sax moom lay njëkkee ndax teraanga ji dafa rëy ci man lool. waaw mhm. rëy gi rëy ci man nag mooy le fait que mu tàmm ci kurus. te ku mm-hmm. nekk xam na ne sëriñ dangay ngay woo kurus. Mm-hmm. waaw bu doon kurus rek yam ci waaye mu doon kurus goo xam ne. Mm. xaalis bu weex tàll tàll tàll boo xam ne amul lenn lu ci luñ ci rax. lépp xaalis la. mu commandé ko ba Turquie mm-hmm. liggéey ko mu sell lool mu ne man rek la ko yéene ndax lan fi ma jaar ak moom. fi ma jaar ak moom nag yaakaar naa ne am na ñoo xam ne bala maa termine sax. Mm. ña nga naan noob la jaar moom ndax xëy na jigéen ñi moom damay wax ne. Mm. ñoom moom samay nit lañ rawatina nag ñi nga xam ne dañuy séq ak man ci seen wàllum diggante seen néegu sëy. Mm. waaw noob rek laa séq ak moom. comme ni ma ko yàgg a defee ndax damay wax ne man jigéen ju jaaxle ñëwal fëgg ma soo ma fëggee dinaa ci taxaw ba nga kontaan. noob laa ko defal xolom sedd. Mm. te nag fay na ma dama la koy leeral fay na ma xaalis mat sëkk. Mm. kurus gi daf ko liggéey ba mu sotti. cadeau la mu jox ko nit mu indil ma ko. Mm-hmm. ma xam ne kon lii sedd xol gi moom foo ko takk weesu na ko. dëgg la moo tax ma ne la boo ko ubbeewutoon tamit moom lay ubbee waaye di ko ñaanal teraanga ji yàlla na ko suñu borom yokkal. waaye tamit yàlla na ko yàlla dëgëral sëyam gën koo dëppaleeg borom këram ba ni mu ko bëggee mu amee ko noonu kontaan naa lool daal di ko di ko ziar bu baax a baax di ko ñaanal ndax lii rëy na ci man lool nag wax dëgg yàlla. tabaarkàlla macha allah bi ñu yàlla boo léegi-léegi souvent dama wax ne am leen fit ngeen fëgg ki nga xamante mooy Modou Touré ku ci jaaxle ku ne wala nga gis ci lu la jaaxal yëkkati sa téléphone nga woo ma mais déggaguma ku ma woo wàllu nopp la dinañ ci ñëw waaye sëñ euh, Mm-hmm. ci seet yi ni ñuy abonné kenn ci na mm-hmm. suñu moo war a doon sa sarax mm-hmm. am na ñoo xamante ni ñoom itam ñu ngi woote di seet moom laajul déplacement wala ñëw di rang di sonn ngir ak seet te seet googu tamit soxna Mbayang euh, dafa nekk buntu ñaan loolu fa aw nit ñi nangu ko muy mm. sëriñ bi muy kii ñaanlu mm. seet mooy lépp seet nag euh, dafa doon loo xam ne euh, su nit ñi fexe woon ba buñ demee ci sëriñ seetloo la mm. soo leen gisut ñu bañ laa ñaanloo ndax ki lay fajal sa jàngoro bu xamul lu la dal nga jox ko sab xaalis ne ko ñaanal ma yow yaa bëgg mu lekk sab xaalis kon damay wax ne ñiy jàmbat naan sëriñ diw daf maa nax sëriñ diw daf maa nax ñépp boo ko xoolee ba ci biir bañ demee seetlu wuñ dañoo ñëw rek wax la seen yitte ne la ñaanal ma ci. Mm-hmm. wala soit que ñu seetlu ba pare gisu leen ba pare nga wëlbati ko jox ko sa xaalis ne ko ñaanal ma. nga bëgg insister waaye bu fekkoon ne da ngaa yam ci rek ñëw ne ko seetal mu waxoo ko sa soxla nëbb ko. Mm-hmm. ne ko rek seetal ma. Mm-hmm. mu seetal la ba pare bu la gisee xam nga bu la gisul xam nga bu la gisul nga yóbbu sa xaalis ndax nit ki moom bala mu laa mën a fajal sa aajo faaw mu xam lan mooy sa aajo. dëgg la sëñ Modou moom ku koy seetloo du la laaj sa tur ak sa tur yaay la lay laaj boo xamante sama borom kër dana la kër bi ndax daf la woon ginnaawam déet léegi su ko defee muy di la ci est du enquête boobu moo waral loolu. waaw enquête boobu ci la bokk ndax xam nga dafa am sëriñ soo xam ne dañoo yeewu lool. Mhm. li may wax nag li tax ma koy wax mooy. Mhm. dama ko xam bu baax a baax. Mhm. moo tax ma koy leeral dafa am ñoo xam ne. soo ñëwee dinañ la enquête ba nga xam ne. liñ lay seetal yëpp yaa leen koy wax. bu ko defee ñu ñëw. commencé di la ci leeral tuuti te fekk lépp yaa leen ko wax. man nag euh, damay wax ne te yàgg naa ko wax man su ma naree toog di seetal nit ba pare wëlbatiku di ko demander lan moo la tax a jóg bu boobaa man wax dëgg yàlla am du ma du du ma waxati waxu seet. ndax loolu taxul ñu naan seet. soo naree seetal nit ki ba pare. nar koo demander lan moo la tax a jub. loolu day jar rek nga ñaanal ko te bañ koo seetal. Mm-hmm. beneen bi tamit mooy. Euh, seet dafa am benn sew-sew bu ci am boo xam ne su fekkee ne mën nga ko dëgg mm. yow sëriñ bi da lay dimbale résultat dalay yomb lool mm-hmm. ndax da ngay fekk ne boo ko seetalee di nga xam sarax yi di nga xam li ko waral di nga xam lan moo koy faj léegi nag bu fekkee ne mënoo seet mooy waral sëriñ boo xam ne dafay ñaan waaye pour mu am résultat problème lay doon zéro résultat dëgg la zéro moo tax toujours man bu may ñaanal nit yenn saa yi mm-hmm. di ko assuré wala di ko xamal ne ko lii ma lay jox de boo ko defee ni ma la ko waxee forcément di nga am di nga am résultat. dëgg la parce que fekk na dafay am fu ma ko teg. macha allah beneen bi tamit mooy ci wàllum euh, seet man ni ma ciy doxee. Mm. instant bi ñi nga xam ne dañoo abonné ci woon ci man. daanaka léegi ñaan lootuñ dañ ma koy wax sax dañ naan man de sëñ Modou seet gi nga may seetal chaque jour. Mm-hmm. bu dee sarax war na ci ma génnee ko. Mm-hmm. man léegi amatuma benn ñaan boo xam ne maa ngi dem ci sëriñ ko waaye toujours damay gis ne mbir yi mi ngi dox wërsëg yi mi ngi ubbeeku amatuma benn jafe te fekk euh, xoolal leen seen na rek wax leen ko ñu génn sarax yi rek moom la ñuy def. macha allah xam ne loolu am solo am solo la. toogee ci seet tey jii dama fi yàgg euh, mais nag euh, sañ naa ko jël teg ko ne ba incha allah ayubis yi di ñëw dinañ dellu si waat ci fii nga xamante ni mooy seen sit mais seetlu ba pare wut sa kaaraange wut sa ubbeeku dafa am loo xamante ni lu bees la nga indi ko parce que toujours wax naa leen ne sëñ Modou dafay innover. lu jëm ci wàllu njënd ak njaay wàllu bay rek ubbeeku nga indi ci loo xamante ni amul sikki saaka ndax li ko waral mooy am na kenn koo xamante ni tey mi ngi ci tiktok bi mi ngi ci réseaux sociaux yi di def feu et flamme taalibe sëñ Modou la li mu njambaan la ko jox njambaan gi lan la waaw njambaan gi de du dara lu dul man damay wax ne toujours dama koy faral di leeral li ma xam xam naa ko ba pare te nag maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax ndax avant ma koy defal kenn sama bopp laa koy njëkk dëgg la dëgg la waaw moo tax bu ma gisee nit ñi di wax dama naan leen da ngeen a xamul rek mm-hmm. man sëñ Modou man li ma xam sant naa ci yàlla bu baax a baax ndax lépp loo xam ne jariñ la mm-hmm. sama bopp laa ko njëkkee dëgg la ba leer na ma ne lii baax na mi ngi may jariñ ma doog koo génne di ko publicité pour nit ñi jariñu ci mm-hmm. li ma xam nag bari na bari goo xam ne damay def rek jamono ju nekk ak la ma ca mën a génn leeral ko liggéey ko nit ñi jox ko nit ñi waaye nag euh, ñu xam ne comme noonu nga ko waxee ci ki nga xam ne dafay yëngu ci wàllum commerce. Mm. wala vente en ligne nga xam ne dafa xew. Mm. nga xam ne liggéey la bu simple boo xam ne du la yàqal dara ci say activité te boo dee xool léegi àdduna bi yëpp moom la ñuy def. Mm. waaye tamit yëmut ci vente en ligne ci ki nga xam ne dafa nekk ci benn bërëb. nekk fa ak ay moroomi jigéenam wala nekk fa ak ay moroomi góoram. bëgg faa gën a am baat wala gën bëgg fa nit ñi gën la faa ràññee. wala ngay yëngu ci politique. wala sax ci mbir moo xam ne da nga bëgg siw nit ñëpp dégg la xam la. Mm-hmm. lii jaaro bi lañ ciy liggéey ak parfum bi nga xam ne moo nekk ci butéel bi. d'accord jaaro bi ak parfum bi. jaaro bi ak parfum bi ñoo ànd ñoom ñaar ñëpp ñoo nekk nii. ah duo la. waaw ñoom ñaar ñoo ànd. d'accord jaaro bi da nga koy takk. waaw parfum bi da koy jëfandikoo ñaari yoon ci bis bi mais da koy raay ci sa loxo rek raay sa kanam. mais nag dafa am doole am doole joo xam ne soo ko commencé. Mm. soo gisee ne bayre bi ëpp na da nga koy wàññi di ko raay benn yoon ci bis bi ngay laal parfum bi benn yoon ci bis bi. d'accord mais jaaro bi moom du tàqalikoo ak yow. jaaro bi moom du tàqalikoo ak yow du tàqalikoo ak yow. d'accord mais dara nag toju ko. lu dul mm. ne nga takk ko di euh, sëyeeg koo xam ne daganu la lu mel ne di sëyeeg ku sa borom kër wala di sëyeeg. ku sa ngay mooy rek. waaw loolu rek moo ko mën a toj. d'accord waaye lu dul loolu du toj. d'accord waaye nag ñu xam ne jaaro yu bari na lool waaye jaaro sëñ moodu nag. Hmm. dafa bokkut ak yeneen jaaro yi. Eh, jaaro plus parfum. waa keñ maa ngi doon leeral tamit ne. Hmm. képp koo xam ne sëriñ joxati na la jaaro. waaw demal nga teste ko nga dem ci tëgg na ko ubbil ma ko nga xool boo ko ubbee doo fekk dara. Hmm. bëri na ci ñu takki jaaro jàpp ne jaaro yi am na njariñ amul benn njariñ man nag sama jaaro li ci nekk. soo ko ubbi woon. di nga gëm ne ndeke sëñ Modou lépp lu mu wax nit dana ko def. Mm-hmm. ndax lépp lu ma la ci limal dinaa ko ci def jaar bi boo ko ubbi woon kayitu dix mille lañ boo xam ne am na lu ma ci liggéey dugal ko ci. kayitu dix mille yaakaar naa bu doon ay tappale du ma jaral may jël dix mille francs di ko ci dugal. te ku ubbi bosom dana ko ci fekk. képp ku ma ko jox demal nga ubbi ko boo ci fekku dix mille ak yeneen ak yeneen yi ma la ci limal ak yeneen yu ma tuddut. waaw bu la neexee génnal ci internet bi nga wane ne sëñ Modou kat. ab euh, arnaqueur la. dëgg la mbaa nga woo ma. mbaa nga woo soxna Mbaye ak leeral ko pour wax la ne la sama jaaro dama ko respecté. mais 10 000 plus bagage plus mbóot ci jigéen bi nga xamante ni bëgg na takk jaaro bi mbaa du rëy ci moom. waaw moo tax ma ne la su bayre bi ëppee rek il faut nga wàññi ko ndax lu lu bu am doole am doole la. d'accord bayre bi moom dafa am doole la waaye bu ëppee nag da nga koy wàññi. d'accord mais parfum bi dañu gis ne butéel bu ndaw la. Mhm. mais ba tey itam am na yax buy taxawaalu ci biir wala ma noppi. mi. mooy mbóotu parfum bi. li tax mu nekk mbóotu parfum bi mooy xam nga tey boo jëloon xottu parfum rek joxe ko. am na koo xam ne danaan ah sëñ Modou daa jëlu butéelam rek du fi parfum def ko ci. dëgg la waaye nag li ma xalaat ba xalaat ko mooy yax bii nekk ci biir. xanaa mm. sëñ Modou bu doon naxee du jar muy jël ab yax di ko ci dugal. dëgg la. waaye bii rek maanaam. noo ko weddi na ñam. waaw kay yax bii rek maanaam nekkut sax lu nit mën a am ci nu mu yombe ni déedéet. Mm. maanaam yax la boo xam ne ci ci ci fi koy jëlee. dëgg yàlla am yombuta am waaye nag man nit ñi jaral nañ ma lu ne ñu am jëfandikoo am solo daal man man mooy sama yitte daal. ba tey ci leeral bu sama parfum jeexee sama yax des ndax am naa droit jël beneen parfum def ci biir. waaw parfum bi ci nekkoon laa lay wax nga jënd ko defaat ko ci parfum bi dañ koy jaay. man man li nga xam ne mooy sama secret mooy yax bi ak li nekk ci biir. jaaro bi biir jaaro waaye jëmmi parfum bi moom ñëpp xam nañ ko. d'accord waa waaye yax bi mooy mooy mbóot mi. d'accord euh, dañuy dañuy dañuy teg foofu sunu baaraam euh, tubaarkàlla macha allah li ma leen koy waxee toujours rek sëñ Modou Touré mi ngi fii ci Yoff Apexi euh, wetu marathon woo leen ko ci numéro boobu la rek 78 123 06 56 su ko defee dina jokkoo ak yéen wax naa leen mu ngi boori maraton boo fa taxawee woote wala nga dugg mbedd bi jàkkaarloog marathon foo laajte jaaykatu ndawal bi rek ci bitigu bambara yi boo fa jàddee di nga gis kër sëñ moodu incha allahu taala dana jëflante ak yow ëpp naa bañ a jël nag jaaro bi ak euh, parfum bi de ndax ay yëfam ñam xam la tudd Euh, sëñ Modou am leneen loo xamante ni da nga ko indi dinaa ñëw ci wàllu nopp waaye dafa am loo xamante ni dafa sonal nit ñi surtout guddi yi ñu toll euh, muy ngelaw te docteur mënu koo gis euh, leneen ak leneen sax lu ci ëpp mënu koo gis des fois di ngelaw dina la dugg sax nga dem ñu ne dañ la liggéey dañ la sëf mooy dox ci sa yaram wi mënoo génn sa kër yaa ngi diis te fekk boobu ngelaw kese la nga indi ci loo xamante ni lu bees tàq la muy xeetu cuuraay nga ñëwal ma ci waaw ngelaw léegi dafa bari ndax mm. euh, dafay bari ñuy ñëw ci man ñoo xam ne mm. buñ ñëwee ñii ay liggéey lañ lay wax ñii lu ne lañ lay wax waaye boo ko xoolee ba ci biir da ngay gis ne ngelaw rek moo leen jàpp mm. ba ci sibiru su bees li bees bii nga xam ne moo moo daanaka boo demee hôpital yi moo fa fees dell dafay rax ngelaw ñu bëri ngelaw moo leen solo mais comme hôpital ñoom ngelaw mënuñ koo gis boo demee sibiru lañ lay wax wala leneen ak leneen waaye nag euh, ngelaw loolu moo tax ma liggéey cuuraay bi d'accord cuuraay bi maanaam nit ku nekk war na ko am rawatina bu dee da nga nekk borom kër. Mhm. wala nga nekk père de famille wala mère de famille. Mhm. ndax xëy na njaboot gi moom am na yu bëree bëri du doon seen yitte. Mhm. waaye li yomb na boo ko wutee rek sa kër nga koy def saa boo xëyee suba. waaw taal sa xal sànni ko ca mu xeeñ ci kër gi. rek ñëpp suuru ko ñiy liggéey liggéey ñiy toog ci kër ga toog ci kër ga ñiy jàngi dem jàngi. xet gi dugg ñëpp. waaw bu ko defee kooku dañuy wax bu génnee ngelaw du ko solu muy benn. Mm-hmm. ñaareel bi tamit mooy su fekkoon ngelaw ci moom tamit dafay dañ. dafay dañ léegi kon xam nga loolu yomb naa liggéey. lijjanti ki yaramam diis mu toog benn place bu ci suuroo incha allah dina ne fojjet dem yoonam. waaw cuuraay la boo xam ne doo ko taal benn yoon ci kër. Mm-hmm. maanaam ngay sentir ne maanaam ngelaw. ngelaw wala seytaane nga wala ñu tooñ wala xeet yooyu noonu di la dugg wala sax maanaam di des ci nit ki déedéet. boo ko jëfandikoo rek automatiquement yooyu yëpp day dañ ci nit ki. da nga koy sentir ci sa yaram mu doon lu yomb loo xam ne foo mën a nekk rek boo ko commandé mën na la ko yónnee incha allah nga jot. incha te yaakaar naa ni jot ci méttiwul. déedéet déedéet dafa am yoo xam ne maanaam maanaam nit ki bu ko bëggee ci man bu ñëwee rek dana ko am xanaa mu bañ a ñëw waaye bu ñëwee rek am ko nu mu mën a def dinañ juboo ko mi ngi noonu Serigne Modou la moom la ñu àndal tey ci seen site bi nga xamante ni moo xew ci jamono tabarkalla macha allah muy yëngu ci yu am solo yii il fallait ma jëkke ko parce que yaakaar naa ni bu dee wàllu kaaraange la bu dee wàllu cat la bu dee wàllu rab la waxtaan nañ ci bataay yi bu ngeen suivre site yi incha allahu taala di ngeen ko gis mais yu bees yi nga xamante ni moom mooy yëngal jamono lu ci mel ni ñuy vente en ligne tabarkàlla maa ngi nuyu sa cliente bu baax a baax nee na ma namatuma dara ndax ku ma xool ci euh, TikTok beeg ñoom seen rek di nga xam ne maa ngi jëflante ak sëñ Modou ndax maa ngi samay morom tabarkàlla euh, sëñ Modou damay ñëw ci loo xamante ni nag loolu dafay euh, dafay euh, laaj gën a leeral muy lu jëm ci wàllu kayit ak wàllu bëgg a tukki man toujours damay testé yabalu ma nit yabalu ma kenn maa doon tukki barki dem boog njaay am ku ma àndal am ku ma waroon àndal bi mu njëkkee dem yaa deux mois dañ ko refu refoulé fichier ko delloosi ko ci dëkk bi may dem ne ko nañ ànd dem mu àndandoo ak man waaye ma jël passeport bi jox la amul ku ko xool ci aéroport yi te pourtant kanamam ak photo mag yépp nga fa tey jii maa ngi ko fa bàyyi ca dëkk ba man dellu siwaat sëñ Modou secret boobu lan la waaw secret boobu du dara lu dul mm. euh, comme ni nga ko waxee rek sëñ Modou moom lépp lu muy génn di ko wax waaw xamal ne lu lum liggéey la mm-hmm. ba gis ko gisati ko man de xam naa ci dara dafa fekk nag ne mm. euh, dafa am nit ñoo xam ne mm. dañoo wut yenn yi ñoom liñ man rek mooy liñ xam ñu ñëw wax ko simplement mhm. ku yàlla nar a dimbale nga ñëw ci ñoom mhm. waaye bu weesoo loolu pare nañ ci dëgg la ndax man damay wax ne li ma xaw mu néew mu bari mhm. maanaam même bu tasaaroowut tamit man sama bopp rek man doy na ma sëkk dëgg la ginnaaw yàlla bi ma ko xamalee ba ma koy mën di jëfandikoo dëgg la secret boobu nga xam ne moom la ñuy bind ci passeport bi moo xam da ngay ñaani wala dañ la mas a wala xeet yooyu en tout cas ba ma ko dalee liggéey ba léegi musuma koo liggéeyal nit mu dem mu ne dañ koo sonal ci ay question wala dañ koo sonal wala dañ koo refule loolu mënul am. ba ci doomu borom oto école ba. ku man di doon maanaam euh, soxna si loolu li ma ko liggéeyal. bari na lool waaye musuma koo liggéey. Mm-hmm. kooko ne ma damaa dem affaire bi dëgër ci sama côté wala damaa dem ñu refoulé ma wala man kat damaa dem ñu sonal ma ci ay question yaakaaroon naa sax duñ ma may. musul am dëgg la loolu nag di ci sant yàlla bu baax baax waaye di ci woo képp koo xam ne. Mm. Euh, nga tukki. wala ngay lijjanti ay kayit di ko jaare ci sa passeport moo xam fii ci réew mi la wala ci bitim réew. Mm-hmm. su ñëwee daal li ñuy soxla mooy puso boo xam ne kenn mësu cee def dara. Mm-hmm. bu ko defee ca li ñuy liggéey ca lañ koy liggéey. te doo ko gis ci passeport bi it. déedéet doo ci gis dara xam nga passeport boo ci rëddee dara wala nga bind ci dara boo demee ñoom dañ koy gis. dëgg la li ma ciy bind nag day mel ne nga sëgg ci ndox di bind rek. d'accord li ngay bind xam nga ko waaye dara du marqué. mais ki nekk bitim réew. tey lijjanti di déposé. ndax mm-hmm. dafay laaj mu yóbbante passeport am mu ñëw ci yow. nga def ci li nga ciy def yónnee waat ko ko GP mu dem am déet. waaw kooku tamit da koy da koy da koy jar. d'accord xam nga bu fekkoon ne tey da nga koo wax na ko bind ca nangam. Mhm. mën na ko caa bind amee ko na mu ko bëggee waaye nag bu boobaa dafay waral maanaam secret boobu dafay tasaaroo. d'accord. moo tax duñ la ko nangoo wax. d'accord waaye dañ naan la yónnee ko bu la jaralee la nga cey def nag muy paas bi nga koy daggal wala fay gi ñu ciy fay. Mhm. dala koy jaral. d'accord waaye bu ñëwee ci ñun rek ba mu tegu suñ loxo moom bu buñ ci defee liñ ciy def kenn mënatu ko mën mënatu koo rejeté. boo déposé dañ kenn dootu ko rejeté kenn mënatu ko waaye tamit. Mhm. ba tey tamit nit ki nga xam ne. Mhm. dafay wut yeneen kayit yu bokkut ak wàllum tukki. ndax kayit du tukki rek. du tukki rek. am na ko xam dafa nekk ci réew ma bëgg am lu mel ne nationalité. wala bëgg a liggéey fii ci yenn entreprise yi nga war a déposer say kayit pour ñu jël la. Mhm. wala sax ba ci élève bi nga xam ne dafay jàng. Mhm. bëgg tamit maanaam am kayit yu mu lijjant yooyu yëpp lu xeetoo kayit daal soxna si. Mhm. Euh, bu yàlla dogalee nga ñëw jëflante ci ak ñun. wallaahi laasim di nga ko am comme ni nga ko bëggee. du jaas. tabarkalla macha allah te kenn du la téye aéroport tubaab ak nasaraan kenn du xool say affaire récemment laa ko dund mu wóor yàlla wóor yonent bi. Euh, moo tax il fallait bu ma ñëwee rek man lu ci nekk dama koy def témoignage am na sama mbokk boo xamante ni tey jii euh, auto école la yor doomam itam macha allah dund naag moom lu mel noonu facilité boo xamante ni gars yi sax ñoo ko doon woo di ko ubbil bunt yi kon yaakaar naa ni loolu dafay jaadu ma indi ko ci ay leeral pour gars yi mën a jëflante ak moom euh, ci wàllu le waaye ba tey sëñ Modou wàllu nopp xam naa daanaka ñu ngi waaj a jeexal mm-hmm. nopp tey indi la kurusu xaalis kurusu xaalis gee mujj ndax boo dajale woon liñ ci am ci ay kado ay jasneer ak ay nagi màggal mën naa gëm ne euh, nopp tabarkalla macha allah jaratul ñu ciy wax ndax firnde gaa ngi nii kurus gaa ngi nii nga yor ci sa loxo mais foog nga ñëwal ci nit ñi parce que jigéen ñi bis bu yàlla sàkk nga dégg ku jooy sonn waaw comme ni nga ko waxee noob moom yaakaar naa ne <clears throat> maag yow bañ ci dalee séq émission di ko wax yàgg na lool dégg la waaye nag wax waxaat du bëri wax mm. leeral la rek bëgg ñu dégg la la Euh, bëri na tamit ñoo xam ne dañ ciy wax am ñoo xam ne dañ la koy yombalal ba nga xam ne dangay fekk mu tege rek nga jël waaye noob du noonu ndax nag dafa am nit ñoo xam ne pour nga noob leen faaw nga xam seen bis ñu juddu xam heure ban lañ juddu xam weer wan lañ judd yooyu yëpp da nga ko day aajowu nga xam ko man nag côté boobu fànn boobu dama koo xam fànn boobu nag bu fekkee da nga bëgg a jaar ci côté bu leer bi lay doon mm. mooy alxuraan ak yu mel noonu mm-hmm. waaye am ci côté boo suñ fa àggee. Mm-hmm. ndax da ngay gis koo xam day ñëw ci yow ne la man de sama jëkkër àdduna bi yëpp noobal nañ ma ko mënuñoo fexe ba jàpp ko dafa am sëriñ fekk jëkkër ci sax amut sëriñ waaye fañ war a jaar lañ jaaragul. dëgg la léegi nag man. Mm-hmm. nit ki li tax bu ñëwee ci man di ma jàmmat wàllum noob. Mm-hmm. ka ma bëgg a jàpp li tax du échec mooy dama laa mën a jàppee ci ñetti anam. yoo xam ne yooyu mënoo wax ba échec ci. bu fekkee nag da doon ko dëgër bopp ba ma yan la ñett yi nag moom. boo moytuwul moom sa sa jabar moom tànkam lay jël teg ko sa digg bopp bu fekkee ne jigéen a ñëw ci man ma leeral ndax góor ñi dañ may faral di mere ci noob yi nga xam ne maa ngi koy séq ak seen jabar yi di leen ko defal ba seen jabar yi jekku leen ñi ngi may noobloo bu baax may leeral ne waaw may leeralaale ne may leeralaale ne li may wax ci wàllum noob góor gi may déglu bu mu jàpp ne jigéen rek a ko moom même góor noonu la mën a ñëwee ma defal ko jabaram loo xam ne day topp ci moom ne xarum yar wala mu topp ci moom ne xaj bi nga xam ne borom boromam moo ko moom maanaam yooyu nag euh, ban ak ban la waaw mooy li ma la wax maanaam am na ñoo xam ne mën naa leen a jàpp ci fas. fas nag dafa bëri fas fas. dafa dafa dafa bëri xeetu nuñ la mën a jàppee. dëgg la ndax ba ci xànc dañ ci dañ ciy xas lu bokkut ak euh, gumu poqe. Mm-hmm. man xànc dama ciy fas. Mm-hmm. di xas di fas ci gumu poqe. Mm-hmm. waaye tamit euh, di jël nit ki tamit di rëdd xaatim yoo xam ne. Mm. maanaam bu ma la ko dóoree. maanaam noo mën a def moom xam ne ponkal dëgg moom moo jëflante ak waaw beneen bi tamit mooy euh, beneen bi tamit mooy euh, dafa am noob yoo xam ne su fekkee ne da nga koy def nit ki te bëgg mu mu mu jàpp ko ba nga yëg ne jàpp nga ko soo ko liggéeyee nit ki ba pare il faut yow nga am loo toog wërdal ko ko waaw waaye ba tey nag bokkut ak noob yi nga xam ne daanaka moom pour ma defal ko nit yombut ndax dafa doon loo xam ne jooni jooni la mooy fas yi. bi nga xam ne da nga koy takk mu tiim sa kanam ak bi nga xam ne danga koy takk sa buntu néeg loolu pour ki war a ñëw la ki nga xam ne danga koy wooj pour mu ñëw bi ngay takk sa kanam nag mooy ngay sëy ak nit ba pare xëy na joxu la bopp wala respecté wu la wala sax mu lay tere boppam loolu nag góor dina ko def jigéen dina ko def nga xam ne noob moom soxna Mbayang yaakaar naa ne bëri na ñoo xam ne euh, su ma ci dee wax ak yow dañ koy dégluwaat rek waaye yàgg nañoo dégg man ak yow ñuy wax wàllum noob te da ngay xam ne tamit man li ma xam lépp wax dëgg yàlla munuñ koo tasaare ci ay émission xanaa di wax luñ jot rek wax ci ba keroog. yàlla ñu def li waat dañuy dellu si waat sax que am na xamante ni yitteel na ma te yitteel na mbokki internet yu bari bëggoon naa ñu wax ci muy wàllu dëddale. dëddale bu ñu ko waxee nag waxuñu sëñ Modou fekk ñaar ñuy sëy mu dëddale leen waaye dañ wax ne ma seen i njaboot a ngi bitim réew topp nañ ànd yu leen neexul moo xam góor la buy ànd ak ku góor wala mu doon jigéen joo xamante ni ka mu topp bokkul ak moom diine wayjuram ànduñ ci wan na ginnaaw ay wayjuram dem sëñ Modou yor ci ay bagages yoo xamante ni mën na laa delloo siwaatal sa njaboot maanaam dëddale kook lu bon delloo siwaat ko ci biir kër gi ci lu gaaw rek après nga jeexale ma néew parce que sa néew kàttan moom ëpp naa bañ a wax waaw wàllum dëddale nag ñu bëri dañuy jàpp na dëddale nit ak nit rek mooy dëddale mm-hmm. waaye comme ni nga ko waxee maanaam nit dina nekk bitim réew di jëfandikoo njollu mm-hmm. wala di tox xeet yooyu nga bëgg koo dëddaleeg moom ndax loolu tamit des koy dëddaleeg nit mm-hmm. du jaage ne nit ak rek waaye nit tamit dina topp nit ñoo xam ne baaxuñ bëgg koo yàqal avenir am nga bëgg leen a dëddaleeg ñoom wala sax nag maanaam nit ki am borom këram wala am jëkkëram ba pare bàyyi ko fa di taxawaalu ñu jégal ma ci kàddu gi bu ko defee loolu tamit des na ci dëddale man nag dëddale bu dee ci xeetu nit ak nit moo tax ma koy def maanaam ci li ma koy def ci ab reen laa koy def reen bi bu ma ko daggee ba teg ko jël paaka bu ñaw dóor ko ci mu dagg ci digg bi bii jaar nii bii jaar nii ci sensé fa lay yem amul ma dem te ñëw ci sensé buñ toogoon doon naan café wala doon naan ataaya sax jàppal na duñ ko àggale foofa lay yem. kenn ku ne dem. waaw kenn ku nekk dem bu ma jëlee ren ba def ci li ma ci def ba teg ko dóor paaka bi mu ne mu tas ci digg bi bi jaar nii bi jaar nii foofa lay yem waaye nag duma ko faral di gaaw a def ndax dëddale goo xam ne boo ko xasee def nit ak nit moom àdduna moom dootuñ ci àndati moo tax nag bu ma koy def. du da ngay ñëw rek wax ma waaye dinaa xool ba xam ne lii la cay dëgg ak ci du dëgg ma koo def bu dee nit ki nga xam ne nag dafay jëfandikoo loo xam ne du nit ak nit waaye liñ ko bëgg tàqalee lu mel ne sàngara la mm. wala tux wala xeet yu mel noonu mm. su boobaa benn mën nañ liggéey loo xam ne ki nga ko bëgg a def moom ngay nax ba mu jëfandikoo ko mm. su fekkee loolu day jafe mën nañ ko liggéey jël jox ko mbaam mu jëfandikoo ko waaw bu fekkee ki ko bëgg def moom xëy na boo ko joxee dara du ko nangu su boobaa dañ koy jël liggéey ko jox ko mbaam mais bu ko xas mbaam mi xasee lekk maanaam dafay mel ni nit koo xam ne dafa tiim mbaam muy lekk lekk ba pare mu jël fa mbaam ma doon lekkee di ko lekk xam nga loolu nit du ko def soo ko déedéet dalee sàngara nag wala xeet yu mel noonu maanaam noonu lay demee nga xam ne ci sens moom it da koy bàyyi macha allah waaw am na solo mhm. ñu tàggatoo sëñ Modou parce que temps bi jeex na ci mhm. new kàttan nga may ci gaa yi mhm. tuuti waaw néew kàttan moom damay wax ne euh, li ma ciy wax lenn kese la muy sëñ Modou muy keneen muy keneen ku mën di doon ku lay jox garab daal naan la jëfandikoo ko. Mm-hmm. na ko bàyyi xel bu baax a baax ndax am na ñoo xam dañuy jël ay comprimé di ko ci def. Mm-hmm. te loolu mën na laa xañ wér gi yaram. Mm-hmm. am ñoo xam ne tamit lañ lay jox mën nga koo jëfandikoo am kàttan waaye lam lay yàqal moo koy moo koy man nag euh, li may jox nit ki euh, nee naa leen woon euh, maa ngi koy liggéeyee ci benn luy meññeet loo xam ne ci suuf lay meññee te maa ngi koy liggéey ca xob ya maanaam mu doon loo xam ne amul lenn lu ko rax te du la indil benn effet. mu doon loo xam ne nag yàgg naa wax ne bu dee ku nekk ci bitim réew wala nga nekk Dakar gii boo ñëwee ma jox la nga jëfandikoo ba mu leer na la sëñ Modou li mu wax lu am la bu doowaa mm. ma lay jaay doog laa jaay bu dee koo xam ne nag nekkoo ci réew mi lu mel ne bitim réew moom mënuma laa jox ngay essayé ndax dangaa sori mm. waaye li may man mooy jaay la boo gëmee nga jënd boo gëmul tamit nga xool ko wóolu nga dem mu jaay la su ngu fus kàttan nag man damay wax ne bi may jaay traitement lay doon loo xam ne da nga koy jëfandikoo pare ci. Mm-hmm. am sa kàttan te dootoo ci sonnati du ma la jox nag loo xam ne da ngay dëkkoog moom foo dem di naan foo dem di naan bañ jàpp ne yow mi danga am feebar bu nekk ci yow. Mm-hmm. déedéet. dama lay jox traitement bi gën ngaa yàgg une semaine nga tàqalikoog new kàttan sa kàttan di dox normal incha allahu taala. waaye loolu jar na ko waaye surtout jamono bii ñu nekk nii jamonoy sedd bii tabaarkàlla macha allah sangoog sa jabar ci biir mbàjj mënuloo ko dara. loolu jar naa daw wooti wooy ji sëñ Modou de 78 123 06 56 Yoff Apex yi ci boori marathon dugal ci mbedd mi jàkkaarloog moom mel ni ku jëm Nord Foire immeuble naar yi ak bitigu bambara yi ñoo jàkkaarloo dugal ma mbedd boobu troisième kër mooy kër sëñ Modou Touré cheikh bi ma bàyyil nga tàggoo tàggoo boo xam ne dem dellu waat lay doon incha allah di tàggatoo daal di wax ne euh, ñaan moom dafa doon loo xam ne di nga làmb ba sonn te doo daj dara mm-hmm. mooy waral nga dem ci sëriñ bu ne sa aaju du faju waaye nag boo dee làmb bu yàggee di nga daj ndax am na ñoo xam ne dama leen di bàyyi xel ci yenn saay ci internet bi waaye ñooñu seen xam dama koy rafetlu donte nag du tudd ay tur waaye am xam ne dañuy wax rek nga xam ne kii li muy wax la waaye nag nit ñi tamit ñu yeewu rek eh, di bàyyi xel bu baax a baax bëri waane daal sëriñ boo xam ne dem nga fa di ko ñaanloo boo teeyoon tuuti rek dinga xam ne kii mënu laa ñaanal mm-hmm. di wax ne lépp lu ñu ci wax nag mu jub nañ xam ne ci suñ boroom la rek waaye lépp ñu fi wax mu dëng nag nañ xam ne ci man mii di wax la di ko jégalu baax di ko tuub di wax in uridu ila al islaah mastataatum wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu cant ak ngërëm ñeel ko moom sëñ Modou ture numéro yaa ngi noonu ci suufu écran bi ngeen mën ko am woo leen ko rek jël seen i rendez-vous euh, seet seen seet jël seen i sarax waaye nag jaaro beeg parfum bi lu bees tàq la fi tabarkàlla macha allah man léeg-léeg day jékki-jékki yu mel nii rek ma dégg jàmm Euh, mu ngi noonu kon ñu koy jaajëfal bu baax a baax di jëfal képp koo xamante ne àndoon nga ak ñun di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen gan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fi amaanillah jaa ngeen jëf